di Macky Sall doon waxtaanee démb sa jam ñaajo waaye nag si teewaayu secteur privé bu Sénégal ci teewaayu partenaire développement yi ci teewaayu maire yi ci teewaayu assemblée nationale ak o conseil des collectivités territoriales ci teewaayu conseil économique social environnemental au conseil dialogue social ñi ñëpp ñoo gungewoon Macky Sall démb sa jam ñaajo ngir nag ñu fay waxtaane ana yan pexe la ñuy nas ngir nag sunu économie réew mi maanaam mën a jógaat yéen a kaay gi di réew mi ko dëjee ñu xëy fekk fa njiitu mi di président Macky Sall daat nay wax ne jamono ji sunu taux de croissance bi am na ay jafe-jafe yu métte métte ngir woppi coronavirus waaye 2021 dinaa ko yóbbu ba 5 virgule 2 pour cent te su ma leen ko waxee bay boo ngeen gëm ko moom Macky daa di wax ne 2022 dinaa ko yóbbu 7 virgule 2 pour cent su ma leen ko waxee bay boo ngeen gëm ko moom Macky nee na 2023 dina ko yóbbu 13 virgule 7 pur cent te su ma leen ko waxee bay boo ngeen gëm ko moom Macky Sall ne 2023 joojee bu ngeen gisee muy nekk 13 virgule 7 pour cent dafay nekk at mi nga xam ne dafay yemb ak ñu jëfandikoo sunu pétrole bi bi ak sunu gaz bi njiitu mi ci réew mi quotidien ak le témoin ak vox populi ak source à ko échos nee na lu toll ci quinze mille milliards dina ko daal di génne ngir nag sunu économie réew mi mën a soqali ko waat yéen a gi nee na moom Macky nee na quinze mille milliards yooyu ci ay réforme investissement yu mag a mag la ci amal agriculture beek élevage ak numérique industrie ak sunu entreprise yi moom njiitu réew mi daan nay wax ne ngir nag ñu relancer sunu économie bi ñoo ngi ciy xaar bu baax a ñi nga xam ne ñooy waa secteur privé bi loole nag ñoom béye boo ñu daal di koy dégg dégg yéene kaay gi Macky Sall nee na il temps ñu daal di organiser nag li nga xam ne moo jëm ci sunu wàllum wér-gu-yaram gi maanaam jël ay milliards yu bare bare bare dugal ko si atum 2020 jàpp 2024 lu toll ci 500 milliards dana ñu ko jël dugal ko ci wàllum wér-gu-yaram gi ci réew mi ndax jot na sëkk ak barke yéene kaay gi délibération njiitu réew mi di Macky Sall ni ki démb ci kanam mbooloo mu bare bare daan nay wax ne sunu économie réew mi nga xam ne dafa nërmeelu ngir nag mu daal di jógaat nag ñoo ngi ciy xaar ñi nga xam ne ñooy secteur privé national bi ngir nag ñu daal di siy sóobu bu baax baax a baax ngir nag yaakaar ji nga xamante ni daal mébét nañ ko ñu daal di koy am Macky Sall sax nee na secteur privé étranger bi ñoom tim ñoo ngi leen ti xaar yéen a kaay gii di Dakar Times nee na neexul ba neexul waaye nag Macky Sall engagé wu na ngir économie réew mi daal di jógaat laas yéen a kaay mu ñu xamal lan ñu Macky Sall nee na dootul jël ay milliards di ko dugal ci benn secteur boo xam ne amul lu ñu fa ay réforme réew mi ko di ñu fekk fa président ba ñu jóp mi nga xam ne moo jiite MEDES moom nag daal nay wax li nga xam ne moom la ñuy xaar ci relance économique bi ak proposition yi nga xam ne secteur secteur privé bi defal nañ ko gouvernement bu Sénégal ci lu jëm ci wàllum proposition bi ñi nga xam ne ñooy secteur privé bi daan nañu def am mémorandum boo xam ne fukki poñ ak juróom benn la jamono ji nag ñoom ñoo ngi siy déglu autorité yi ci plan de relance bii nga xamante ni jëm na ci wàllum suqaliwaat sunu économie bi nee na lépp nag mu ngi tënku ci investir ci loo xamante ni lu jampa-jampa-jamp la yu mënta ñàkk la jamono ji nag lu ñu war a njëkkee mooy fexe ba Sénégal moom boppam ci lu jëm ci wàllum dund Sénégal am ay jumtukaay yu mat sëkk jëm ci wàllum wér yaram gi am na nag ay xaar yu bari milliards yoo xamante ni ñoo ngi koy xaar ci plan de bi ngir nag askan wi nga xam ne ñoo am ay jafe-jafe ak entreprise yi nag mën a soqali ko waat loolee lépp ay xaar la beneen bi tamit maanaam bu ñu bëggee soqali sunu koomu réew mi il faut nag ay investissement public ak privé yéen a kaay gi di 24 heures dañu fekk fa Mamadou Lamine Diallo nee na relance économique bi nga xam ne ma Sall ma ngi koy wax am na solo waaye nag li nga xam ne moo ko yàq maanaam mooy mal gouvernance yorin bon wi nga xam ne maanaam moom lañ ñu tàmmal yéen a kaay gi di laas xëy di ñu xamal lan ñu ànd gësam ñoom nag danañu amal gerewu ñaari fan ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllu wér yaram gi te nekk ci hôpital bii di Abass Ndao dañu bëgg opital bu ñu daal di koy audité ñi nga xam ne nag ay jàngalekat lañ nekk ci kuréel gii di G20 tey jii danañu am toogaanu ñaxtu ci ministère bi ñu dénk wàllum fonction publique la ko waral nag mooy lenteur administrative yi nga xam ne am na ci lu jëm ci seeni carrière ñoom jàngalekat yi yéene kaay gi nee na Macky Sall daan nay wax ne entreprise yi yëngatu ci lu jëm ci wàllum tasum xibaar 2020 ak 2021 seen taxe fiscale yi danañu leen ko baal réew mi quotidien nee na Mansour Faye gorob njiitu réew mi yàkk na musiba ak mbelengaan Ousmane Sonko daal nay wax ne Ousmane Sonko ñëw na sama bureau daal di sukk di ma ñaan ngir nag ma doxal ko ab audience digganteem ak Macky Sall Vox Populi ñu fekk fa colonel Abdourahim Kébé daal nay song Mansour Faye nee na Mansour Faye xamul mënul jëful laas yéen a kaay mi di Macky Sall démb daal nay défendre boppam ci lu jëm ci wàllum inondation yi Macky Sall nee na 1960 ba léegi li mu def ci mbënd mi ci Sénégal amul kenn koo xamante ni def na ko ci ñu fekk ko ci populaire moom njiitu réew na jamono ji pare na ngir daal di débattre ak kum neex neex rek ci lu jëm ci wàllum bënn mi Macky Sall nee na pare na kum neex rek ñëwal yéen kaay gi du Source A ak Les Échos mu xëy di ñu xamal nan ñu kuréel gi ëmb magistrat yu Sénégal mer nañ ba maara détail yi ñoom sax fas yéene nañoo janoo ak ko du xabaar yi ajjuma bi nga xam ne moom la ñu ma la ko waral daal ñoom dañoo jàpp ne Souleymane Teliko mi jiite EMS dañu koy bund xatal di ko jéem a tiital Idrissa Seck Khalifa Sall Malick Gakou ni ki démb ñoo ngi woon Touba yéen kaay gi di sunu làmb kàddu yi Balla Gaye numéro 2 yëkkati woon wax ne mboolem mbër yi nga xam ne ñoo nekk ci làmb ji ñépp ko tiital est-ce que mën nañ see boole Eumeu mi nga xam ne ñaari yoon la ko daana Max Mbargane nee na Balla Gaye 2 dafa bëgg a provoquer Eumeu Sène Bécaye Mbaye nee na Balla Gaye mooy yëngal làmb ji yéen kaay gi di Stades xëy di ñu xamal lan ñu Edouard Mendy mi nga xam ne dem na Chelsea niki démb titulaire la ci match bi doon dox diggante Chelsea ak Tottenham Alfred Gomis yéen kaay gi nee na jamono ji c'est officiel dem na ren. Conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen doon may seen revue